tay dañ ñëw pour seet si ñaari usines yi nga xamné dañu lak tay depuis le 24 mai mai euh, à 10 heures muy usine Takamul Foot ak euh, équipe usine nu gis nañ ne pratiquement usine bi dafa lak ba ba jeex euh, bien vrai que ñuy sant yalla ba nga xamné ne euh, benn bakkan waddu ci mais dégâts yi ëpp na romb na fu ko foogul parce que pratiquement. lu tolloog cinq milliards ba cinq milliards cent cinquante jëm six milliards euh, yàqu na fi te boo dee xool tey usines yi ñu ngi employé lu tolloog pratiquement euh, deux cent personnes donc tey gouvernement bi nekk euh, ci perspective bu création massive d'emploi donc du ñu mën a seetaan usine bi nga xam ne mi ngi doon

synthèse la bok bokk tax ñu ñëw ci turu liggéeykat yépp yi bok synthèse mais surtout industrie alimentaire pour wax né ñi ngi ñëw pour massawu direction bi massawu ministre bi à travers lui le gouvernement. parce que nak moñu bok bokk jabatu ñun ñëpp kon bu luy amé ñëw nañu pour féké aussi mettre lu li fi xew accompagner direction bi xamal né en tout cas direction bi ñi ngi seen wette bépp démarche boo xam ne war nañ ko def bu ñu am ñun cër war nañ bu ñu ko yëkkatee war bu ñu ko yëgee war nañ ci mën a dox li ñu fiy créé ci emploi boo xoolee agriculture bi ba commercialisation bi ëpp na dix mille emplois donc vraiment war nañ leen jàppale usine bi mën a démarrer très rapidement pour que les emplois soient sauvés